li di remercier fa remercier toll su ma gisee engouement bi bi nit ñi am pour moo lay wan ne ku nekk bëgg ñu dégg ku ci nekk aussi bëgg a apporter te loolu dama koy te appel bi may lancé rek mooy dynamique bi nga ni ne nii tax na nit ci nekk bëgg a wax ku ci bëgg ku nekk bëgg intervenir ku nekk bëgg a wax sa yàlla ñu yàlla dimbali ba mu àggale te son excellence le président de la République premier ministre bi gouvernement bi yëpp dañu prêt pour lëkkaloo ak waxtaan ak yéen diisoo ak yéen pour loi yi nga xam ne ni dañ ko bëgg a def pour agriculteurs yeeg éleveurs yeeg forestiers yeeg euh, pêcheurs yeeg ñëpp ku leen dañu bëgg ñu defandoo ko ensemble en tout cas rafetlu naa jotaay bi lool lépp loo xam ne nii ndax équipe bi yi koom mii wax nañ ko mu xaw a tuuti ñoo ngi leen di te xam ne intention bi ak mébét lu jub lekk ak ñu defar kese moo tax ñu wax mënuñoo nag terminer te remercier wuñu félicité wuñu son excellence le président de la premier ministre Ousmane Sonko parce que bi ma dajee waa CNCR sama première réunion loi bi ci liñ ma njëkk a jooy ci la bokk bi ma dajee Ismaïla mii ci éleveurs yi loi bi ci li ñu njëkk a jooy ci liñ ma bokk ci la bokk bañ ko waxee président son excellence président la wax ko premier ministre bi ci li ñuy nekk

Moi, je le dis publiquement, je ne suis pas politique. Le droit Sénégal, qu'est-ce que c'est ce que mon mon mon C'est son excellence de président de la République. Premier ministre, les ministres affaires, affaire, monde les Diomaye ak Sonko def musuma ko man vous nommez un ministre de l'agriculture vous nommez un ministre de l'élevage ñu gouvernement bi Sonko ak Diomaye jox ñu ko dans ces conditions leen may seen chance nañu leen déglu nañu am patience dëkk mënoo ko defee six mois qu'on dise la vérité aux Sénégalais qu'on dise la vérité aux Sénégalais dëkk mënoo ko defee juróom benn weer maa ngi dégg ñu lan lañ fi defoon 60 ans gis nga fi en tout cas ñoo ngi leen di gërëm di leen sant fi may terminer mooy sama collègue yi nekk ci ministère le monde des agriculteurs le monde des éleveurs le monde des artisans le monde des forestiers le monde des pêcheurs dañ ñoo sas ñu tey li ñu wootee gis nga ñëpp saa bi dafa def del ñun fonctionnaires yi aussi soyons Monique. Monsieur le secrétaire d'État, merci. parce que soo joxee mbir soo sasee ne ko defaral ma lii mu def liggéey bu mucc ayib Sëriñ Fallu daf doon wax ku la defal lu baax su nit ñi teewee soo ko waxul sa baax des na donc ay euh, ministre Alpha félicitations yow ak sa équipe bi et sachez qu'on est gardé une bonne volonté giveaways.